macha allah macha allah euh, asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñi fi teew yëpp ñëpp bàyyiwuma kenn ginnaaw bi sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal sunu ay waajur euh, di nuyu suma tonton Mamadou Mbodj di vice-président euh, des amis de la nature nga xamante nii Euh, wàllu environnemental daf ci am expérience def na ci presque plus de vingt ans et quelques années d'expérience représenter Sénégal partout dans le monde euh, ba nga xamante ni ci wàll wi mu féetee c'est le seul africain boo xam ne tey moom moo fay nit ku ñuul ci wàllu euh, nature tonton maa ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal di la remercier Euh, sunu diggante ak fondation bi nga xamante ni mooy African Community mm-hmm. et Conservation nga am expérience si wàllu alam vraiment avec toute ton énergie bàyyi sa jot yëpp ñëw accompagner ñu vraiment yàlla na la yàlla fay vraiment kontaan nañu trop euh, di remercier aussi koo xam ne comme yaa suma rakk mi ngi koy wax sànq icône la si àdduna bi icône la si mbind ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ni de grâce par sa modestie euh, mooy Birame Ndick Ndiaye nga xam ne ay ay tegsam ba tey dañ si jëriñu ndax euh, liggéey na ak artistes yu mag yu bëri yoo xamante ni tey dañu marqué seen empreinte fii si Sénégal ku mel ni Youssou Ndour ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen yi nga xam ne euh, biram daf leen jox xam-xamam ba man mi nga xam ne sax def na projet boole ma ci loolu nag nekkoon ci man rêve boo xam ne rêve bu réalisé wu la kon vraiment euh, grand frère ñi ngi lay ñi ngi lay ñi ngi lay ñi ngi lay sant bu baax di la remercier di la ñaanal si déplacement bi nga xam ne malgré ton calendrier chargé yaa ngi déplacé wu pour ñëw accompagner ñu ci projet bi di remercier aussi suma mag muy gise pen gise pen moom mën naa ne sunu kilifa la dafa bokk ci sunu kilifa yi ndax bépp projet bu ñuy def rek ñi koy njëkk a yëg ci lay bokk dina si joxe xalaatam dina ànd ak ñun ci projet boobu kon moom it à chaque fois du sonn du tàyyi ci di participer si sunuy projet kon gisee yàlla na la yàlla fay di remercier Mouhamed Fall moom personnellement man maa ko fanwal suma bopp man dama ko def référence ci simplicité am vraiment euh, civilisation am ni mu correcté ak ni mu fonkee doomu aadama moom li li li li gisee pen wax ci man moom laa koy delloo moom foo ko gis ay bëñam ngay njëkk a gis ba pare nag mu mu représenter Sénégal partout et dignement tey bu ñu demee FEMUA représenter fa sunu réew ginnaaw yàlla moom loxoom daf ci dugg bu baax a baax a baax a baax donc il a beaucoup pour la culture africaine di xaritu Asalfo ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen moom aussi amuñu fayam lu ñu nekk rek daf ñuy accompagner di àndandoog ñun ci projet yi ñuy def di remercier sunu ñaari kilifa du ma tàyyi di ko wax muy Pape kër Diouf di suma mag di suma xarit di suma kilifa Euh, di remercier suñu beneen mag su suñu beneen kilifa bu nekk fële ci Amérique di patron wu New African Production muy Birane Sarr ak kilifa yi nga xam ne tey projet bi ñoom ñoo ko taaw ñoom ñoo ko ñoo ko dox ba lii sotti ndax ñun ay ndaw lañu xamuñu mënuñu encore une fois amuñu expérience peut-être yàlla mooy dogal rek ñu gis ñu am ci ñun confiance ndax ni nu mel ci Sénégal ñu am ci ñun yaakaar donc di ñu coacher di ñu booster donc kon kilifa yooyu euh, occasion la pour ma remercier leen di remercier nag su suma manager Maxtaar Maxtaar maa ngi koy remercier parce que comme na ma ko daan waxee noonu laa koy waxee tey moom du manager waaye rakk la rakku ji sës rëkk si man la te rëkkuma lu ma bëgg sentir na ko ba laataa ma koy wax sax am na yëg-yëg boo xam ne dem na uti ko donc ci réalisation yi ngeen di gis nii yëpp il travaille sans bruit waaye yi ngeen di gis nii yëpp ci kattanu yàlla ci ay pexem la kon maxtar yow ak Xaadim ak xale yi nekk si sa ginnaaw yëpp ndegam seen grand frère laa ngeen xam cër bi jox ma ko maa ngi leen di ñaanal bépp projet bu ngeen dugg rek yàlla na ko yàlla barkeel ak képp ku nekk nag sa ginnaaw ndax su ma limee rek damay juum. ndax génération consciente famille la kër la dëkk la àdduna la ndax am nañu ay représentants partout dans le monde ñi fi nekk ñi nekk bitim réew ñoom ñëpp ñi ngi ci biir kon Makhtar mention spéciale man Pape Diouf kontaan naa ci yow maa ngi remercier aussi la presse ndax tey presse bi comme ni ko Biram waxee euh, tey communication bi ñuy def bu yaatoo rek lépp yéen la kon yéen aussi ay ndaw ngeen ñoo bokk génération te ku ci nekk boo bàyyi lépp concentré wu ci benn yoon da nga ñaan yàlla am si teraanga am ci famille ba di si dimbali ay doomu aadama di leen jël di leen recruter kon li tax ngeen bàyyi lépp concentré wu si métier bi yàlla na leen si yàlla defal ndam ba ngeen am si lu kawe seen njort waxtaan bi nag presque mën naa ni tonton Mamadou wax na ko. Euh, biram tonton biram wax na ko gisepen wax na ko Mouhamed wax na ko et mission la boo xam ne benn lam rek je pense que ni du du yëngatu te mbooloo mooy doole alhamdulilah nag ba nga xam ne tey Afrique de l'Ouest wërngal këpp ñu xalaat ne mën nañu am benn ambassadeur sénégalais boo xam ne mën na jàllale suñu communication de par sa de par son waaye loolu du man Pape Diouf nu ma mel rek ba àdduna di am ci man yaakaar di pointer seen doigt ci man yéen waa Sénégal la ndax bi may door comme ni ma koy waxee pour ma am vingt cinq francs jënd kafe suba naan ko problème la woon ci man dama doon xëy du ma am lu ma ndékkee damay dox ba dem géeju caaro yi toog fa di woyantu ba heure añ jot mu leer ma ne añ jot na ma dox dem suñu kër pour añ mais loolu tey rëccuwuma ko moo tax keroog bin ma proposé projet bi ma d'accord bénévolement sans rien attendre et que yàgg naa ko def ndax lu ma am tey askan wi ñoo ma ko jox kon man it yoon la lu nit di xaar ci man rek muy si sama baat muy si sama image di si sama ñaq ma delloo leen ko moo tax bi ma ñëwee kër tonton keroog di ko seet si ñuy waxtaan ci projet bi mi ngi may fàttali ci ni ñu war a aalee aaree aalam bi ni ñu war a aaree nat nature bi mi ngi ma naan am na foo xam ne ci mbaaw ay vingt cinq ans ci ginnaaw jàkkala woon waaye tey ndox mi nangu na ko kon nga ngeen gis ni que tey aar nature bi aar gàncax gi aar rabu àll yi jàll na ba ci aar jigéen ñi aarale xale yu jigéen ñi ndax dafa yaatu affaire nature dafa yaatu kon mission la boo xam ne dafa sori trop dafa yaatu waaye man Pape Diouf man rek mënuma ko doxal kon maa ngi tàllal sama loxo les artistes tous les artistes di Sénégal rawatina nag maa ngi koy njëkk ci sunu kilifa yi ñoom Youssou Ndour ku mel ni Baba Maal Ismaïla Lo ainsi de suite Omar Pène ndax ñoom ñoo balisé yoon bi ba mu rattax ba ñun ñu mën a ñemee ñu inspiré ñu ñu ñu topp si seen tànk fan leen di leen suivre ne ah ñun kat bëgg nañu mel comme suñu papa yi ni ñuy demee di représenter Sénégal partout dans le monde ñu it war nañu góor góorlu am taxawaay boobu ñun tamit vraiment di représ représenter Sénégal partout dans le monde kon ñoom aussi ci ñoom lay njëkkee di leen tàllal loxo ne leen seen doom mi ngi leen di tàllal loxo di sàkku seen ñaan ndax xam naa ne bu nu ñaanalee rek mission bi dina oyof di woo aussi tout la crème sénégalaise les artistes su ma nee artiste nag yamul rek ci woykat képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci aar rek bokk nga ci mission bi di woo ñëpp bàyyiwuma kenn ndax nit ku nekk rek mën nga représenter sa bopp ci aar nature bi et fondation bi nag fondation la boo xam ne li leen tax a jóg mooy ñëw Afrique jàppale rabu àll yi protégé rabu àll yi waaye ku bëgg a wax ne da nga da nga war a protéger rabu àll yi li wër rabu àll yi ci nga war a njëkkee ndax tey boo xoolee suñu parc yi laaj na gën a renforcer sécurité bi naam ah ñoom ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo ndax man sax am naa ci ay xarit ndax loolu daf ma mës a intéressé am naa ci ay xarit yoo xam ne. avant may xam ne man dinaa mës doon ambassadeur pour vraiment représenter euh, nature mbiru mbiru nature dama daan dem pour sax dem di def ay visite pour bëgg a dem ko la ko baax ak yu mel ni yeneen parc yu mel ni ñoom di leen visiter di xooli rabu àll yi ma gis ni que ñu ngi ciy am euh, pastif bu am solo waaye nag je pense que ni. ku yokku rek nit ku nekk da ngay ñaan yàlla yokku et que ñun pare nañu pour ànd ak ñoom ñu accompagner ñu ñu nit ñu jàppale leen ba nga xam ne mission bi liñ ci bëgg yàlla mën nañ ci defal sutura ba vraiment lu bari ñu réussir ko donc loolu yaatu na ba ci jigéen ñi ndax bu ñu nee ñi nga xam ne dañu wër dañuy rëbb te amuñu autorisation je pense que ni ki nga xam ne dafay ñëw tey pour rëbb si am na lu mu soxla c'est parce que amul ay moyens muy uti ay moyen mais je pense que ni tey ñooñu fondation bi bu ñu ñëwee pour jàppale leen jox leen ay moyens jox leen ay jumtukaay ñooñu war nañu mën a rejoindre ñi nga xam ne sax ñoom ñoo yore sécurité parc yi ba nga xam ne tey braconnage dina wàññeeku lu bare bare bare ñoom it dañu am njaboot muy jigéen ñi. seeni njaboot aussi dañu am ay doom kon je pense que ni tey euh, mission la boo xam ne peut-être au fur et à mesure dinañ ko gën a yaatal ci ay bataaxal ci ay chanson ci ay jéego waaye pour vraiment généraliser euh, li nga xamante ni tey moo ñu fi tax a toog tey mooy mission la boo xamante ni man kontaan naa si trop am naa ci cawarte ànd ak ñoom accompagner African African Community et Conservation pour aar alam bi aar gàncax gi aar rabu àll yi aar jigéen ñi ak xale yu jigéen ñi ci biir loolu it ñi ngi waajal benn album album boo xam ne depuis presque Covid bi sénégalais yi ñu ngi koy xaar à chaque fois ñu ngi ma ciy laaj et que jot na waaye nag. sunu borom lu mu dogal rek am na lu ko waral donc ci biir loolu bi nga xamante ni nomination bi egsi na automatiquement saisir na ku mel ni suñu tonton Birame Ndik Ndiaye ne ko tonton ak sa expérience bëgg nañu woy ci rabu àll bëgg nañu woy aussi ci jigéen la protection de la femme bëgg nañu woy aussi ci la petite fii donc mu ngi ci xalaat mi ngi ci nekk di ci def liggéey bu am solo euh, incha allahu rabbi buñ ci paree rek. dinañ ko génnee dina bokk ci album bi nga xamante nii dina war a génn donc ñu leen di remercier bu baax la presse di remercier aussi ñi nga xamante ni jàpp nañu ci projet bi yëpp di remercier aussi euh, ambassade bu bu États-Unis parce que fondation bi nga xamante ni tey nomination bi ci ñoom la jógee Amérique la ñu nekk et que je nous on s'est dit que projet projet bu mel noonu mënuñu nekk di ci liggéey. te ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifay réew moomu déplacé wuñu seeti leen donc bi ñu demee nag ak accueillir nañu à bras ouverts ubbil nañu buntu yëpp wax dëgg yàlla ci projet bi nga xamante ni mooy projet protection euh, des animaux la protection de la femme et de la petite fille donc ñu ngi leen di remercier ci turu ambassadeur bi ak chargé de culturel bi vraiment merci euh, l'ambassade des États-Unis donc pour gàttal ko daal xam naa ni fii la ñuy yemagum incha allahu rabbi ba leneen loo xamante ni génn na fi rek après ñu ñu mën ci développer di remercier nag toute la presse toute tout la presse bàyyiwuma kenn di ko jaarale ci seen njiit Bour géwél donc vraiment Pastef bi gis nañ ko rafet na taxawaay bi rafet na merci beaucoup